mbokk yi seetaan seen télévision seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal wax di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñaana suñu kilifa gi aju bugaan yàlla dolli ko jàppale dolli ko sàmm yokk kaaraangeem mosal ko ci ndox ak bépp gàllankoor defal ko ay yéeneem yépp ñaana suñu technicien sunu caméraman muy Ndoy Barham yàlla defal ko ay yéeneem ñaari Cheikh Sarr ak Kassa ak Saalix ak Saalix bu seen TV ñaari Saalix moo fi Saalix bu daara ji ak Saalix bu seen TV lu dëgg ndoy dañuy dem ci sunu tafsir waxoon naa la démb ne yàlla nee na alquran alquran nee ndaw li ma ko jox mu indi ko ci yéen ndaw lu sell la alquran ku laabul bu ko laal daf lay alak maa la ko daf lay alak mu alak daara yu bëri ndongo yu bari loolu leen alak yor kaamil yoroo njàpp yor jukki alxuraan yoroo te am na naaféq gu rëy gu ñuy def mooy lan ndooy xam nga kii par exemple ci kaamilo bokk booy dagg ci benn kayit tareet teg ku fële ne matatul kaamil xam na li may wax Lat Joor moom nga dendal matatul kaamil am na ñuy def leen xoos benn baat dindi innahu ne matatul wala la xawlu rasulin ne matatul mën a jël alquran di ko téye te laabuñu Cheikh Sarr kooku eh, xata kabir la nekk xatar kabir c'est dangereux sax waaye dara boo demee ñiy jàng li ñu ku leen gën a ñeme yàlla bariwul yow noo yore téere eh, alquran yoroo njàpp ñu wax nga naan yàlla kaamil bi la wax yàlla fu mu tuddee kaamil sëñ Saliou xam nga kaamilu alxuraan kañ la am bi yonent bi nelawee la ñu oo ku ne la nga mokkal ndooy tari li mokkal ñu bind Saliou li mokkal ñu bind Saliou bu Sen TV li mokkal ñu bind Iran li mokkal ñu bind ñu dajale su ñeenti mokkal yi lépp def ko benn téere mu nekk mushaf di kaamil ñu ne mat na kaamil mooy firi lu mat ñu jox ko Ababacar Seydina Ali ne gis ngeen nañ leen ko jël def ko ñeenti kaamil ndax xam naa Aïcha su baayam faatoo day jël kaamil bi ne moo ko donn ci baayam kon ni leen ko séddale ñu def ko ñeenti kaamil Babacar benn Omar benn Ousmane benn Aline benn moo tax soo demee ci kaamilu Ousmane ida nuudiye li salaati min yowmil jumaati fasaaw newu fa ne fam duu moo fa ne fam duu ila dikrillah du fasaaw de moo tax saalix boo dee jàngale ci daara bi ba yem ci kaamilu bind fam doogul ne xataa la déedéet ne lii mooy kaamilu Ousmane baat bi du fasaaw fam doo la benn ci kaamilu Ousmane fam def waaw fam doo nga ñëw ci kaam yi ci ñu ne fasaaw ila zikrillah moo tax bala ngaa weddi saalix jeexalal trois cent soixante unité yi muy trois cent soixante professeur la fa ne ci xam-xam yépp nga duy ko ci sa cuukeel bi nga xam yi xaram ak yi dara mais boo ko dajaleegul bul weddi kenn loolu mooy dëgg trois cent soixante daara mu am université ku jeexalul yépp mënoo weddi parce que li ngay weddi am na daara bu ko saxal boo dajalee yépp na xam bu wér ak bu wérul hmm? loolu rek buñ la laajee alkande gi ci daara waxal loolu man maa la ko wax fooy alxuraan rek laal ko yoroo njàpp yàlla bi mu naan laa yamassuhu illal mutahharuun defuñu ko kaamil saalix duggal foofu malaw duggal ci créneau boobu laa yamassuhu illal mutahharuun ku la wax ne ko kon aay bi kañ la wàcc xanaa ginnaaw bi ndajalee kaamil lay doog a wàcc du la wax dëgg jamais yàlla def ne ku laabul bu ko laal ku laabul bu ko laal moo nu alag ñun <laughs> moo nu mhm. alag ba ñu tottooral mais bu fekkoonte ni tënku niñ ci li borom bi wax laab doo ko laal doonte benn kay la saalix laabal doo ko laal waxu yàlla la te nee bu ko kenn laal laa yamassuhu illal mutahharuun ñu ne ko daal mu ne tanziilun min rabbil aalamiin sama gémmiñ laa ko yàbbee ti ni ma laabee noonu la sama wax laabee ndax ci ci man la jóge ñu naan waaw boo kaamil bu matul dagan naa laal topp leen fële kenn waxu leen ko fenn ku ko bindi du tee nga nga doo ca d'accord parce que benn man bala ma d'accord leen lay mën a d'accord saalif saxalal ma ne laa yamassuhu illal mutahharuun mu ngi wàcc après kaamil ma discuter yow soo ma ne wàcc na avant du ma discuter yow dama lay weddi xam ne waxoo dëgg te wàcc na avant bu leen ko laal te laabu leen ndax maa ko yàbbi ci sama gémmiñ te ni ma laabee noonu la sama wax laabee lu taq ci man kenn du ko laal te laaboo yéen ngeen am ñeme yàlla saale bu toll ni xaaj kaamil bi sànni xaaj be yor la ca des te naan la te naan al juz oog al nisfoog dañ ko bind rek waaye loolu lu ñuy seetaan la moo ñu alal de man maa la ko wax iñaanante gi ci daara soxorante gi ci daara xeexante bi ci daara fooye alquran bi ci daara moo nu alal parce que xol yi sellul ah xool ko ci ñuy waxtaanee diine rek ku sa moroom wax nga contre ko waaye ah, seet ko rek ku sa moroom wax nga diingat ko weddi ko bay naaw naaw laa wax ci jaww ji naaw defe ne yaa ci nekk nekk nekkoo ci dara da ngaa soxor rek mm-hmm. ku ci defar sa xol iñaanoo soxoroo siisoo xatuloo ti boo koy laal nga laab alxuraan teral la euh, ndooy ma laaj la benn laaj bu dee fekkee nga ko wala saalix gàmmo promenade de Thiès waa ba Pape Cissé Djingué di wax ne Serigne Cheikh nee na alxuraan day fale fekk fekku la fa waaw du fala la fekk jeex na nee na Serigne Cheikh dafa romb sa kër yaa nga foon mu xool ne waa ku moom fële lamp yi ñu ne ko Iran mu ne kuy Iran ñu ne ko moo yor yi sëñ Babacar Si mu ne nekk alxuraan a ngi fal ba léegi at mooma ca la gàmmu xale yi bi ñibbisee ci fajar dañ ne ma gàmmu ko sëñ seex ci yow la ko def nee na alxuraan day fale li sëriñ daar yu bari yu xamoon buñ jàngalee ba wàcc ba sañ si du war ci seen watiir yooyu waaw nee da ngay ko wax xale eh, ne ko boo demee ne sa yaay na ma toggal ganaar gaa jeñ ganaar gaa jeñ mooy ganaar guy commencé nen nee na fa la yam ginaar bu dem ba biir bi ami nen nee lool lay lekk te boo ñëwee ci daara ji xam ne fa la buur yam li nga bëgg a lekk ngay lekk xoolal lekkuñ ca palais ba lopp doole li ngay lekk lekkuñ ci kër ministre lopp doole li ngay lekk lekkuñ ci kër borom alal lopp doole li ngay lekk non mais alquran Serigne Cheikh nee na soo ci yëngu te faluwoo nee na yaa wor mais alquran du wor